moom li ma lay laaj dara ci loolu laa déggee kàddu gi nga wax mooy que ni nekk nii parce que su ma moo la laaj wala moo du bëri nga jàpp ne yow moo tax nga wax noonu wala nga liggéey ba mu leer la yow a bu doole loolu ñu yaakaar moo fa nekk. bu leen gis forme physique boo ñu gis ko sax dañ ànd rek kese yaakaar ne musculation la am combat bi lu ma liggéey ci physique bi nga yóbbu ci musculation kon musculation maximum deux trois fois nga mën a semaine bi mais nag liggéey naa bu baax maa ngi leen aussi suma def sama la liggéey waaw moo koy maa ngi leen baax moo xam ne aussi sonn na ko waa bi jàlloo Touba moom la war a ak laay waaw laay tamit gis nañu ne moom moo yoroon bi ñu nekk ci stade bi moom moo yoroon box ASP kan mooy équipe nationale box waaw ñu ngi leen di baax ñu sama kër ci jiw wala ñu ngi leen di baax mais nag combat bi liggéey nañu ko wax dëgg yàlla. am doole. yàlla baax na la si soreetul. ah man la si. waaw soreetul. ñu ñaan yàlla suñu borom il faut moom déglu parce que dama ko déggee moom Sa Thiès ñu leen jël mu ne muy bëri bëri ñu waxoon nañ ne dëgg daa mooy bëri bëri wax la te moom daa jàpp ne athlète la moom athlète nag dafa aay ci maanaam mbër athlète dafa aay ci mbër athlète daa aay ci mbër waaw yooyu ñu may athlète yoo xam ne amee nañ cinquante kilos wala trente kilos boo ko jiyee ngeen jëloon ko bëri ci làmb di nga mën ko tàkk plus de cent ñaata kilos da lay attaqué sans contrôle dañ koy ñëw yaa ngi tànn surtout Habib Ndiaye Habib Ndiaye moom dinaa ko saa kees ba mu am vitesse te xelal da ngay ñëw ku mu dajee sa kaw jël si Habib ne ma su ñëwee combat du yàgg yëpp a ñuy jot dem te ñu ngi koy xaar ci ñëw fi ci des mu ne li mu saa def démb pour mu daanu mu ne dimanche sama seen day def lu gën a garaaw loolu Habib Ndiaye moo wax loolu. kon man man la ko def. waaw nañ ko nangu lu

donc bëgg naa poser question mais si biir wax ci laa amee question parce que waaw nañ ko dugal ci xeex bi moom bi ñu am kër xëy na. mais li nga xam ne bu soobee ba nga xeex da ngaa doon xeex moo tax a xeex ci àdduna bi bu bu taxawee ba nga ci biir kër gi ci biir da ngaa war a taxaw da ngaa ci suñu yëpp da nga seen ay liggéey yu ñu ko xaw a yëpp da nga ko xeex bu jàmbaar sama ay laaw la euh, nit ñi moom dañ may jàppale wu ma tànn suñu bët yi wala gars yi fekk naa ko bu ñu la jàppale ñu ma tànn xeex dañ ko doon sama papa loolu neex na loolu def na suñu joo képp nekk ci biir kër gi di doon aase am na donc su xeex laa dama mën a bëri mais xeexu naa bu ak xeexu bopp dafa am tuuti différence ci jaww parce que bopp su ñu ko boo jëlee ñaar romb da nga soow kon xeexu lamb dafa am maanaam kàddu mais box kenn du la soow yëpp li ci bëri bu ñu ci bi ñu woon loolu deret na ci deret na ci mais suuf tamit jigéen sax yi nekk loolu ñu mën a xool naka lañu woon mën gën a mën a par rapport ak mais des fois man su ma duggee ci làmb bon c'est vrai jàmbaar da ngay am benn allure wala benn sañ-sañ boo ñëwee boo xam ne waaw rage boo xam ne mu ngi ko jël sax nga bañ a am contrôle mais il est temps pour ñu xoolal bu baax mais nag Alhamdulillah. Alhamdulillah.